wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi din mbokki jullit yi gannaaw bi sante yalla julit yi yonent sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi am mbekté ak contenté téwaat ci pak bu lab bi ci Touba di Daaru Tanzil ñu ñëw teewee siwaat jataayu alquran alkarim bi nga xamné ne sunu mbokk sunu lépp di sëriñ Maam Baara Mbakke moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdou moom Cheikh Mouhamadou moo ko amal chaque année ngir joxe ay résultats yoo xam ne moom la daara ji di génne alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamee ne daara ji bi mu koy tàmbali lu néew la woon lu tuuti la woon waaye tey jii daara ji nekk na lu mag lu rëy loo xam ne waxuma yoonu murit waaye senegal gépp xam nañ loolu nag li tax mu am mooy borom xam dañuy wax ne maa kaana lillaahi daama wa tasaal lépp loo xam ne yàlla da ko nit da ko sos te yàlla tax loola dana sax te dana yàgg daara ji nag mu taxawal ko ngir dimbali Serigne Touba ci wattu loko Alqur'an karim ndax Serigne Touba da jaamu yalla bëgg alxuraan fonko diko di ba yalla mom la ko karim mo xamne man la tinil kitaba fahfadhu biya wa umri wa umri ihfadhu biya mune yalla mom lo nga alxuraan karim waye bima ko mom lo pare dama bëgg na ngas wut ay nit ñoo xamne dañ ma koy sam ko ci man ño xamne duñ deñ di jangale alquran karim ba sa di taxo lolu melne ne mam bara baara mom cheikh mom suñ cheikh abdul aziz bara ci ñoo jël bokk ci jàmbaari sëñ tubaa yi nga xamne bi sëñ tubaa di sanc dekk bi di tubaa li fi njëkk ñaan wala li njëkk wax di tarjuman di moy am njàng la soññee da sant yàlla fa jutani fa jutani yawma bi khair minani wa qutani ila iktifa'i i sunna ko yàlla may nga ma ngën ji ay xéewal womman nga ma tamit andi ma ci dëkk bi jemele ma ci ma rey sunna sallallahu alayhi wasallam min ba'di ma kadam ti daaxul naas yu duxuli ni fi fi sharakal khannas gannaaw bi nga xamne nit ñi tag nañ ma kañ nañ ma ci ne yow day jaamub yàlla bu sell nga ku baax nga loolu tax sax ma bëggoon a toog rek ci jàkke ji ak ci der bi ak ci kurus te loolu suñ tubaay wax de bu ma ko defoon rek te juguma jàngale alquraanu karim jàngal nit ñi diine suñ tubaay nee na kon boobaa seytaane man na ma yu dul xuli nii fu sarakat xanaa si suñ tubaa daa teg mune ma kittu azhadu fi ta'lifi te dana xaw kon du moyu ta'lif te dana sax du moyu li ñu montu ñang ak ñang señ tuba ko kon deke liñ ci mëna a moy nit lo bax bax bax lo mëna jamm yalla lo sel sel ñangal alquran karim boko ko bàyyee wala jàngalee ko wala soñewo ca day mel señ tuba don tubaab doon lo bopam dafa mel ne kon boobaa loolu dala daa dugg ci moo tax Sëñ Tuubaa wëlbati ko ñaanaat ci même xasida mat la foo séeni gi ñett yoo xam ne mooy tax li mu bëggoon moom mu mu ànt mu sotti ndax daara bu ñu ko dee wax dafa am yu ko war a njëkk jiitu ngir jàng la ba mën a wéy ñett yooyu bu amut daara mënut a samp ndax bari na fu ñu samp daara tabax ko ba mu jekk lool sampi école waaye kenn mënu faa jàng bari na réew yu ñu samp def ay université école yu mag yu rëy rëy waaye kenn ñëw fa dem jàng ndax lan amul jàmm jàmm amul ko moo tax sëñ tubaa xam gum xam ne lu mu bëgg a samp lu mu bëgg a taxawal faaw jàmm am bu jàmm amul loolu mënut a samp moo tax bi muy ñaan suñu borom subhanahu wa taala naan ko may ma ay daara ak i tabax yoo xam dañ fay jàngale alxuraan te njëkk a jiital mooy jàmm iya yajuruni ila xuyurun safiya dafa xam yàlla société boo ko bëggee taxawal ba ci réew yi nga xam dañu bëgg taxawal état yu dëgër bëgg développement bu dëgër dañ njëkk incarné jàmm ba pare jàmm bu amul développement bu am avancement mu daal hmm. moo tax la sécurité ak jàmm mooy jiitu ci développement doog mën a moo tax sëñ tubaab mii sëñ ci dëkk bi li ñaan suñu borom subhanahu taala dana ko tabax yii may tabax ngir jàngale alquran karim ngir gindi doomu aadama bala tabax yee taxaw li may njëkk a ñaan mooy nanga ma defal aafiya mooy jàmm ci dëkk bi nanga ma fi defal jàmm jàmm ju saawat baawan alhamdulilahi rabbil alamin loolu suñu borom subhanahu wa taala may na ko Touba dëkkub jàmm la Touba dëkkub texe la Touba dëkkub ndimbal la moo tax ngeen gis dëkk bi la sëñ Abdoulaye Mbacke dañu la waxoon xelu ñëw wala xelu ñëw xelu ñëw da ngay xelu ñëw wala nga xelu ñëw tey ñëpp xelu nañ ñëw ñëpp daw nañu si Touba ndax xéewal gi ndax jàmm ji suñ tubaa doog ñëw nag gannaaw bu jàmm amee lan nga bëgg def mu ne kon bu jàmm amee ba wàccaam binaa ya binaa ilmin wa amalin bi sunnati wa xilmi léegi nag kon tabax yii ñu tabax gannaaw jàmm am na pare kenn ku ne mën ngaa dugg sa kër mën ngaa génn mën ngaa nekk jàmm ak salaam waaye loolu la bëgg suñ dama bëgg nag ñu tabaxal ma fi yàlla ay jàngukaay hmm. ay jàngukaay jàngukaay yoo xam ne yëmut ci jàng kese waaye nay jëfe nag lan lay jëfe sunna si yontu sallallahu alayhi wa sallam waaye gis ngeen la ku xam yàlla la ku xam jamono la Sëñ Tuubaa ñett wax ne bu amul société mënta dox muy jàmm muy la science xam waaye des na benn ndax bu dee jàmm am na réew yu ko bu dee xam-xam bari na réew yu ko am waaye lan moo leen manqué mooy njub njub motax tax seigne touba ci ñettel beuy ba mu ne wajal bina ya bina al-ihtida wa takni kayda kulli diqtida lolu seigne touba jannaaw bi jamm amé nak ñu tabax daara yi ñepp jang al-quran karim seigne touba neena lama ci bëgg nak deug deug moy ak njub na nit ñi jub ndax nit ñi luñ bari xam xam xam lu jamm am am am te njub amul du sa dara yalla du soxla dara kon yalla lim lim soxla la yanalallahu allah luhum wala di walakin yanalu taqwa yàlla li mu bëgg ci ñun mooy ragal yàlla ak njub moo tax suñ tubaab lépp a mat na alhamdulilahi rabbil alamin ñett yi mu doon ñaan muy jàmm muy xam-xam daara el quranu kan yuy jàngale ak sunna seen salaa salaam ak njub alhamdulilahi rabbi tey ku ñëw ci tànt bi fekk ko ku ñëw tàntu suñu maam baara moom sëñ Moussa Abdou Aziz da nga fekk lu mel noonu wax nañ ne résultat yi léegi actuellement ni ñu mokk alxuraan karim ci jamono bii résultat yi waxtu yi ñu wax yéen toll na ñaar fukk ak nangam ñaan fukki xale yoo xam ne ren ji mokkal nañ alxuraan ak lu teg. ñeent ñaar fukki ñeent. 24 personnes ay ndaw yoo xam ne mokkal nañ fa alxuraan karim te li ci gën a yéeme ñun ñuy toog fee di leen seetaan am na ci xale bu jigéen bu def léegi benn waxtaan woo xam ne boo boo ko danee boo ko wanee ginnaaw da ngay jàpp ne am na 30 ans xale bu jigéen bi toogoon fi léegi macha allah tabaaraka boo ko wanee ginnaaw da ngay jàpp ne am na 30 te ndaw la mu def fi waxtaan woo xam ne. waxtanu borom ñaar fukki at la wala borom fanweeri at loolu nag kon moy li seigne Tuba bëggul moy ñu yar leen ci xam-xam jang leen alquran karim tegg leen ci ñub seigne man bara misal la ci lu mel non motax neena ko ñun yoonu murid yëpp dañ lay ci toro yoonu murid yëpp dañ lay ci toro waye rawat na waa Cheikh Mahamadou lay mbar ndax al aqrab awla li gëna jéggëna yé ku sañoon bu ñu tuddu tuddu seigne bara lepp lu genn ci xamam Mahamadou Bara day nek exemple te nag laa xarwa suñ Baara jàngalekat la woon démb rek sëñ Cheikh Joro bu sëñ Bassirou ko jëjal ñuy waxtaan ci kër sëñ Touba bi mu ne sëñ Baara fu mu mas a toogee daa ak këyit de nekk wet bi sëñ Baara loolu sëñ Cheikh a toogee daa ak këyit bi xanaa ko mu ne sëñ Baara gannaaw sëñ Touba mu ëpp lum taalif ci njabootu sëñ Touba yi mu ëpp lum taalif kim daan na woon te xam-xam la ko sëñ Fallou Mbacke waxoon na ko kenn du rawanteeg yow ci lefu mii fil ilmi ci xam-xam wal xel mi ci nawet wala juut ak ci tabe wala nasar ak askan li ko sëñ Fall Mbàkke waxoon kon képp ku ñu tudd tudd Cheikh Mawlana Bara war ngaa nekk exemple ku ñu tudd tudd sëñ Tuubaa war ngaa nekk exemple nan nga war a nekk exemple mooy nii Cheikh Maam Bara def ñun xam nañ ko baax a baax a baax ndax ñu bokk lépp ñoo bokk Tuubaa gi bokkaat Kaybeer macha allah tabaraka waaye bi muy ndaw ba nii may wax yoon yow nii lañ ko xamee waaye tey ku ñëw da xam ne nekkal yàlla rek moo wóor liggéey suñ Tuubaa rek moo wóor tey daaraam ji fépp lañ ko dégg alhamdulilahi rabbil alamin dañuy toog nun di ko sagoo ndax comme ñu liggéey bi ñu liggéey muy boole tarixe am nekk benn nan lañ mën a fexe ba nekk ci frontière ndax dafa am lu ñu tudde ribaat ribaat yonent sallallahu alayhi wasallam daa wax ne jihaad bu rëy ñu ci ribaat mooy lan mooy ñoom seen mambaara ñii nga xam dañuy jàngale alxuraan karim nekk ci keppaaru suñu Tuubaa am na ñoo xam dañoo taxaw uniquement ci réew mi bëgg fee jële loolu ñoo xam ne doomi réew mi lañu bëgg fay jëlee njàngaleem Serigne Touba waaw kay bëgg fay jëlee njàngaleem Serigne Touba loolu nag ba amul ñu taxaw ci frontière ni yonent sallallahu alayhi daan def bi mu nekkee Makka ak Medina wut ay saxaaba yoo dañ naan dem leen toog ca frontière ya ngir noonu yi ba ñu dugg si ba ñoo bett la ñuy wax riba moo tax AIS taxaw ngir lii fi Serigne Touba bàyyi muy tasawuf ak lii fi mag ñu baax ñu bàyyi muy tasawuf ñoom ñëpp nan lañ mën a fexe ba ñu yàqkat yooyu duñ agsi ñoom Mame Bara ñii ba yàqal liggéey Serigne Touba